ku bëgg xam dara ci xaqiqatul muhammadiya da ngay bokk ca tarixa cheikh mbaa tarixa cheikh garanti la moo tax wax naa dara bërki dem Mansour ne ma Souleymane ne ma bu ko waxati ma ne ko danaa ko waxaat dégg naa benn xale buy wax ne ñoo ñu wékk seen bopp ab naar baat yu yaradiku yooyu ma ne ko mais naar boobu coach la bu bëgg sélectionner ay joueurs yu mën mu yegg si gis gardien de but bu mel ni Cheikh El Hadji Oumar mu def ko professionnel jël ku mel ni maam Abdoulaye Niass def ko latéral jël ku mel ni Amary Ndack Seck def ko latéral gauche xool kuy toj caax yi mu ne ko Alaaji Malick Sénégal li fi riir Maodo ko fi def ma nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi caaxaan yi bàyyi leen caaxaan. bàyyi leen caaxaan ah dégg leen li dégg leen li yaa majmaal allama al huda jërëjëf macha allah laaj ma si la bàyyi caaxaan waay déedéet xaala ko jàpp mu delloo micro te fi mu ko jàppee baax na boobu moom dagg leen ko dugal ko ci whatsapp yi maa ko garanti dagg leen ko dugal ko ci whatsapp yi maa ko garanti fa tabarakallahu ndax sëriñ Babacar si radiyallahu moo waxoon ne bu leen xuloo waaye na ngeen jàng tontu nit ñi nañ def ndànk wëli yu bu nekk lam am kenn mënu ko ko xañ kenn mënu ko ko yàqal mën nga ca yàqoo nag taalibe yi nañ teey nañ teey nañ teey nañ kenn ku ne àndal ak ki nga ki nga bëgg waaye ormalal ñi ci des bu dee am naar yonent bi du naar ku gëmul yonent bi di yéefar yonent bi du naar naar la wala lan lu waaye am foo ko amee na wax ci naar boobu ba jeex na lu waay di am foo ko jëlee ci rasulullaay rasulullaay du naar nekk naar gaaf la ah, diit damay wax di est nekk naar gaaf la du gaaf kon nit ñi nañ tey nañ tey nañ tey am na koo xam ne kenn mënu ko yàqal mën nga ci yàqoon na ko kon Moulay Abdou Aziz kàddu gàngoo jërëjëf Hadj Malick waaw nii dee ko développé de bii baax na dee ko développé fi nga wax ko foofoo xese na wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabiina lahum bi ihsanin ila yawmi ddin